mbokk yi xissa bu waar mu ngi nii benn waay la boo xam ne ku jëfandikoo xelam la ci naka ñetti étape ñetti jamono dikkal na ko ci ak dundam jamono bu njëkk bi nekkoon na ci waata suuf ñaareelu jamono bi dem na ba yore fikra muhammadu ibnu abdil wahab muy al wahabiya ñetteelu étape bi mu delluwaat nekkaat suufiyanke kooku lan moo ko indil tawfeex ñi mu am ba dellusiwaat ci yoon wu jub leer bi dëppoo ak alquran ak sunna dëgg dëgg jikko yi saxaaba yi di ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam jàngale woon xelam la jëfandikoo te xel moomu dey xam nga ne suñ boroom subhanahu wa taala yàgg na ci walla bari na lu koy jëfandikoo ci ay jaamam di wax naan afala taqiluun xanaa du ngeen xellu kon mbokk mii xamal ne xelam la jëfandikoo ba suñu boroom musal ko ci lépp loo xamante ni da koy gàllankoor ci ak dundam rawatina eh, dund ka nga xam ne du jeex mukk muy yawmal xiyaamati akbar mbokk mi bi mu njëkkee nekk li nga xamante ne moom mooy ta suuf mu tasawifa daf daan wird daf daan eh, tudd salaatu ala nabi daf daan istixfaar saa su daal daana tooyal làmmiñam ci ay e, e, awraat ak yu bare bari mu dem ba ñen net ci ñi nga xamante ni dunde ñooy seytaane yi de waaye nag seytaane ngemm na leen ci toolu seytaane la ñuy xëy ci fànn googu yàlla na leen ci suñu borom gindi mooy lan képp koy tudd yàlla ñu ñëw yokkat loola découragé loola xëcc la ci lan ngir tur yàlla yooyu nga doon tudd ñu ñaawal ko salteel ko jaxase sa xel ba lu wér la jàppoon nekkoon ci du sa xol di ci naat ci sa boroom nga bàyyi ko ngir ci te amuñu benn argument bu dëgër bu dul benn rek muy naan la lii biddaa la te biddaa boo ko ñuy wax naan biddaa la du lenn gàllankooru leen ci dara waru leen ci lu dul rek ibnu liis dara waru leen ci lu dul seen ñàkk dégg diine kese waaye képp koo xamante nii toppoon na dundu saxaaba yi ci li dégge woon ak borom xam-xam yi dëgg-dëgg nga teg ko ci xam-xam da nga xam ne loolu yépp ñuy def lu sax la jóge fa yàlla ak ab yonentam mbokk bi bi mu nekkee ci wérd yooyu xam ne bu jullee tisbaar wérd bu jullee tàkkusaan ginaaw bi mu wérd timis ak yooyu yëpp nga xam ne dañuy tooyal aw làmmiñam jël temps di ko def ci tudd yàlla xolam di naat muy déglu boroom xam-xam yi koy jege ñi nga xamante dañ koy xiirtal jëm ci loolu bi mu demee ba am jamono muy déglu ñi nga xamante ni ñooy waxaabiye yi nga xamante ni lu ci bari ci seen côté boobu dañ ci xëye ci toolu iblis di yokkaloo nit ñi ci tudd yàlla mu dem ba jamono seytaane fël am xelam mu xaw a gëm loola ñani wax xamal ko ne sa wérd yi ngay def ginnaaw tàkkusaan ak sa wasiwaf bii ngay def sa xasida yi ngay jàng yépp biddaa la mu daal di koy teg ci suuf ab diir bi mu ko tegee ci suuf ab diir mu daal di xalaataat nag taw xalaat nan la xalaatee mooy waxtu yi mu jëloon di ci tudd yàlla di ci def ay istigfaar di ci salaatu na bii waxtu yooyu yépp mu xalaat xalaataat ne mais man waxtu yii man waxtu yii li ma ci daan def muy tudd yàlla léegi naa xool lan laa ko jënde lan laa ciy def léegi bi mu seetantalee ndeketee kon ginnaaw tàkkusaan ba pare lu mu daan seetaan day dem di seetaani football di seetaani ligue des champions ginnaaw yeneen waxtu yitam itam kazalika day dem di seetaan ay feuilleton ay ay série di di seetaan ay théâtre di toog ci ay jotaayu caaxaan di waxtaan loo xamante ni jëmale ko ci yàlla jëmale ko ci yonent bi njariñ la àdduna sax mën na caa bañ nekk ndax yooyu ay majaalis saxaawaqa la mooy jotaay way texee nii xalaataat jëfandikoo xelam mi nga xamante ni moom la ab jullit war taxaw di seetantal di ko jëfandikoo ngir mu mën koo gidee ci yoonu njub wa bi mu jëfandikoo xeleem mu xam ne moom ay jamono waxtu yii lu ci daa def tudd yàlla turu yàlla mu dem ba beneen jamono bi mu ko bàyyee bi mu yàqee xelam ba mu bàyyi ko léegi lu ci def mooy da ciy toog ci jotaay yoo xam ne yàlla gërëmu ko nga xam ne même bu ci amul bu ca amul sax bakkaar ca jotaay yooyee nga xam ne moom tuyaaba du ko ca am te am ca bàkkaar moo gën a jege mu am ci tuyaaba mu xalaat jëfandikoo xelam ne waaw lii nan la mën a nekke lii képp koo xool xam ne vraiment la ma daan nekk mooy li yàlla gërëm mooy li yonent bi alisam gërëm te lépp loo xamante ni ab waxaabiyee ñëw na di la ko wax naan la biddaa la wala yu demee noonu comme ni ma ko waxoon rek iblis booy fel aw làmmiñam moo la koy ñaawloo di la indil loo xam ne làmmiñam moo cay neex waaye du la ci indil daril dalil charir boo xam ne dafay leer jóge ci yàlla ak ab yonentam buy tere mbir moomu noonee te ki koy saxal mën na koo saxal ci jëfi saxaaba yi ndax wirdu yooyu yëpp ku dem ci abu hurayrata sayyidina abu hurayrata radiyallahu anhu xam nga ne wutoon na ak wirdu goo xamante ni doon na ko def bis bu ne douze mille fois tënk ko ci waxtu heure yëpp ba pare yaakaar suñu borom mu jote ko safara ak yeneen ak yeneen ba ci seeni sëriñ sii sax ay ibnu taymiya ñooñu ñëpp xam nga ne wóote nañ ci déggin ci anam yooyu ndax ñooñu ñëpp jël nañ ay wirdu yoo xam ne sàkkal nañ ko waxtu ba pare di saako gërëm kon nga gis ne kon ñoom ñii iblis moom moo leen ngemb ci wàllu googu te weesul ci di yokkatloo jaam yi lii nag ku ko jël misaal ci wérdu wii mën nga koo jël misaal ci yeneen mooy ku ñuy tere gàmm ku ñuy tere yeneen tawasul ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni boo ko seetantalee lan lay dàqloo nan la bu ko def nan la biddaa la nan la nangam di la ko yàqloo nga xam ne seytaane moo yebal seenam xel ci loolu noonu bis boo seetantalee da nga xam ne loolu sax la jóge ci yàlla ak ab yonentam ndax yàgg na laa wax ne jaamu yàlla yi ñaar moo ci am yun ak yunu tënk yin tënk kenn sañu see tigg lu toll ni pepp suuf lii nu boyal jàmm bi sañ na cee def kayfiye bu ko jubu doonte kay kayfiye boobu sax mosi su koo nettali ci yonent bi ay sasaam waaye gannaaw diine moo ko jàngale kon yonent moo la ko jàngal sañ nga koo def kon yooyu ñu ni dàq yépp yi ëpp noonu lay demee ba pare nag ñu yokkat loola ci te place boobu bis boo ko bàyyee ca la nga doon def muy tudd yàlla muy eh, naatal sa xol ci bisi woori bisi nangam yooyu yëpp da gis ne la nga koy remplacer boo seetantal da nga xam ne lu amul njariñ la ci yow la ci gën a oyof mooy loo xam ne doo ci am tuyaaba waaye la ci gën a diis mooy tem sa jotaay ya nga koy weccee nga cey jële bàkkaar lii nag kenn ku ci ne war naan taxaw seetlu bi bu baax a baax na ko sëriñ ba radiyallahu anhu doon wax ja masalikul jinaan ca buntu wirde mu naan yow mi nga xam ne seytaane man na la am nga sa taayal ba mënoo dem ca rootukaay ba dem rooti bul gàllankoor ngal la nag ñi bëgg dem rooti kon yàlla nañu yàlla saxal ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu tasuuf di yoon wi nga xam ne moo dëppoog alquran ak sunna xaqiqatan ndax mooy alwasatiya dëgg-dëgg te la diine la ca gën mooy la digg doomu ndax ñun ëppalun ba mel ni siha euh, yi nga xam ne di saaga ñenn ci yi waaye roy nañ ca ñoom lan baax le mooy lan fonk yonent bi dëgg-dëgg jox ko àqam ak aalul nabi muy ñoon yonent bi alayhi salaatu wasalaam ëppalul tam ba mel ni fikra waxaa bi yi nga xam ne dañuy yokkanloo nit ñi ci ay jaamu yàlla ak itam jàpp ne ñoom rek ñooy kuréel ba jub ku du ñoom koo ci di tasge seen bopp manqué ay melo yu baree bari yoo xam ne su fi ñoom ñoo koy jàngale te melo yooyu nekk melo yi gën a mën a gàllankoor ab jullit ngir mu am ngërëmal yàlla boobu subhanahu wa taala ak taral gi nga xamante taral nañ ko ci takfir nit ñi ci àgg ci di mën am xolum di rey nit ñi ci lu dul dëgg ngir seen ak dégg ñu joonu ci yi kon ëppal googu tam sofiyanke xam nga ni wuti nañ ci kon sofiyanke yi ñoo nekk ci wasatiya mu ñoo nekk dëgg-dëgg fonk yonent bi ak i sahabaam ak itam fonk alul beyti te itam roy leen ca la nga xamante ni noonu lañ dégge woon noonu lañ jànge woon jàngale woon sunna si yonent bi alayhi kon lii mooy lu wér nanu yàlla musal ci saytaane ak lépp luy wuute ak ndigal di ñaan suñu borom mu jëf ñu lépp loo xam ne gërëm na ko musal ci lépp lu mu gërëmul ci barke yonent bi alayhi salaatu wassalaam asalaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ Bay Wàdd mi ngi leen yu baax di la ziyaare euh, xisa bi maa ngi nuyu waale tamit euh, imam Pam Ndiaye ci ci commentaire bu am solo boobu mu ci teg ak euh, sëriñ Saalihu bu Italie ñu ngi koy nuyu baax macha allah tabarakallah Euh, am na solo am na solo ndax xissa mooy nettali da dafa dafa dafa am solo ci dundu jullit ndax nit ki lu ñu ko nettali rek njariñam mën na caa génn moo xam lu baax la moo xam saxaan ba la moo tax alquraanu karim da ngay fekk suñu borom subhaanahu wa taala lu ci ëpp dañuy nettali ay xissa rek bari na ci ñu digalee pare ni ñu ko war a jaamu ni ñu war a def baree bari li ci des lépp dañuy nettali ay xissa mooy ñu baax ña nan lañ defoon ba baax kàccoor ñun nan lañ defoon ba kàccoor ak seen mujj ak ñu baax seen mujj loolu lépp ngir mu nekk nag mujjantal ka di jeexital ci ab jullit mu xalamoo ca mu waaroo ca wala mu jàjjoo ca moo tax euh, suñu borom subhanahu wa taala da ko doon wax yent suna faq sa xasasa laallahum yatafakkaruna euh, de leen nettali xissa yi ndax danañ ci mën a xalamu mën nañ cee waaru gën a dollee góorgóorlu walla gën a dollee jàjje ko euh, ca suuratu Yuusuf sax nga xam da nga gis na ba muy jeex laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab su borom loolu wax lii may nett lépp nag lu dara lu dul ngir ngeen mën cee xalamoo gën a góor góorgóorlu lu ngeen dégg ci xisab muy lu baax ci ci ci saar wi Yuusuf ak i mbokkam muy lu baax góor góor leen ci bu dee ay pexe la mooy tundiku leen ko kon xisab bi nga indi am na solo léegi nag ñu bari dañ koy xaw a sàggane daanaka dañuy dugg ci géej goo xam ne daanaka waxaabee si ñooñu ci dugal. di teg ko weddi ba xisa yi nga xam ne dañuy jàjj ngir duñu waar yu ci ëpp ëpp defatuñ ko rawat na xisa bi nga nett nag mu jëm ci am mbokk moo xam ne yàllaa ko dimbali ndax ni nga ko waxee nekkoon na ci tasaw génn ci duggaat lan moo ko ci génne ak lan moo ko ci dugalaat foofu la mbir ma nekk mooy bi mu ci nekkee daana def li ko yàlla digal lépp ba dem ca nag nawaafil ya mooy la yentu bi sallallahu waxoon ne suñu borom nee na ci xadis qudsi laa yazaalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafil xatta uhibbahu fa ida ahbabtukum samau alladi yasmau bi yasmau bihi ba ila axiri xadis yonent salaa sallam nee na xadis qudsi ma ngi commencé sax man aada li waliyan daana yàlla nee na képp koo xam ne weddi nga wala gaaral nga wala dinga nga wala wala noonu nga kenn sama wàll yi man yàlla déclaré na gel wàll yi ñoom mooy ñan mooy ki nga xam ne yalla neena deful euh, ma nga ca lama neex te moy nek ci farata ya. waye bu ci joge nak ma ngi may jege-jegalu ba ma man bëggu man yalla subhanahu wa taala ndax nek ci neex yalla ak yalla beug la wute na euh, nek ni neex yalla moy nga nek ci farata yi ndax nit man na la man nga nek ci liko neex waye taxul nga neex ko te yaakaar naa nekk ci liko neex ba ba mu la bu ah, mbir mu nit nag mun la beug te ko ci liko neex kon ñu ci ñëk a moy bala la yalla beug faaw nga nek ci farata yi mu nekk farata nag ca ngay nekk nag ba jógee ci dem ci nawaafil li ko jege-jege ba yàlla suma subhanahu wa taala bëgg la kon mbir ma mi ngi noonu ndax a dugg ci néeg te jaaru ci port bi waaw wala boog sa duggin dana ñaaw kon euh, yaakaar naa li nga nett li mooy mbokk moom xista bi kon leer na mooy dafa nekkoon ca la neex yàlla suma subhanahu wa taala mooy di naafila di zikkar yooyu nga xam ne ku ca nekk ku ne yàlla na nga dem ba yàlla bëgg la muy dem nara am mbëggeelu yàlla far am ñu jóge fële ci àll bu ñëw ne ko yow daal zikkar yi ngay def boo jullee pare subaa ngoon ak lim yaag adat yaag nekk ci jàkka yi di def salaatu an nabi di wasifa ak di kuréel ak di jàng yi nga xam ne ay ñaan la ak i zikkar ak salaatu an nabi yooyu nga nekk yëpp naa damay damay wax rek dama koy mbëmbëstal ñu ne ko yooyu yëpp ay bidaa la yooyu yëpp dara baaxu si def ci moom sikk sàkk ndax ndax dañuy wax ne wahabis yi Euh, euh, dañoo doy war ndax ni euh, ñu duggal ci ni ñu duggal ci jullit ñi premièrement mooy fexe ba sikk sàkk am ci yow ci sa diggante jaamu gi nga jaamu yàlla ndax nit bu dee jaamu yàlla ragal ngir ngir ragal sawara ngir bëgg yàlla duggal ko àjjana nga ñëw ci tong tongé ci nopp bi ci bopp bi ne ko li ngay def boo ca boo ko dee def boo ci continuer sawar ngay jëm ndax yonte sanasur wax ko woon nangam nangam kooku bu ko yàlla dimbalul jiix jaax mën naa dugg ci xolam te bu duggee ci xolam lam nekkoon mën na koo bàyyi ñu baree bari nag foofu lañ jaare ba bàyyi lañ nekkoon waaye kii daa am ndimbal ndax bi mu bàyyi lim nekkoon yàlla ko dimbali da euh, koo bàyyi pare euh, dem ci leneen ñu dugal ko ci leneen leneen loo xam ne mooy temps yam daan jaamu yàlla di ko zikkar ak di ko wérdu léegi dañ ko remplacer leneen moom nag mu jëfandikoo xelam ni ko waxee léegi suñu borom subhanahu wa taala ay yi mu wax yépp bu ñu digal cëppaandoo ga danan laallakum taaqiluun ah wala euh, inna fi dalika la ayaati li ulil nuha ulil albaab wala xeet mel noonu donc euh, suñu borom subhanahu wa taala aay yu mu ñu wax rek day bëgg bu jeexantal ak borom xel yi settantal ko mooy xool la normal ak la ca jaadu jàpp euh, settantal ko baax bu ko defee danañ xam ne lañ nekkoon ak li leen yàlla wax kat wuute na bu defee ñooñu daal di wëlbati daal di topp yàlla subhanahu wa taala gëm ko moo tax ab jullit bu dul xalaat rek mën naa amee jafe-jafe donc nit ki da nga war di xalaat baax a baax a baax a baax lépp lu ñu la wax waaye wax wala mu la ciy génne wala nga nekk ca xalaatal bu baax a baax lii lan la ma jural ak bi ma ci génnee lan la ma yokk loolu mat naa bàyyi xel nga xalaat ci côté yi man doon moo xam ci jaamu yàlla moo xam ci bëgg sa diggante doomu aadama yi la moo xam ci ci lu baax la moo xam moo xam moo xam dalaa dolli lenn nag leen yëpp da nga ko war di ko nat di ko tase donc kon mbokk mi loolu jëfandikoo bi mu demee ba xool ne li ñu ko jëlee ci wér duya yam doon def guddeeg bëccëg fañ ko yóbbuwaat mooy neenal waxtoom neenal waxtu mooy la mu daan def ay zikkar ya defatu ko malgré waaye daa mujj sax dem ci leneen loo xam ne neexul yàlla subhaanahu wa taala mooy seetaan football mooy déglu ay maanaam seetaan ay làmb mooy nekk ci ay debaa ak i werante ba julli jot waxtu julli juróom jot mu daal dem julli juwaat donc damay wax ne waxtu julli juróom ñëpp ngi ci daanaka julli bu sàggan sàggan boo gisee bu waxtu julli jotee mu dem julli waaye loolu euh, taxut nga am mbëggeelu yàlla mbëggeelu yàlla yaa ngi koy amee ci nawaafil ñu ni ma ko xamante ci xaddis donc kon mbokk mi bi mu càmbare na xool yàlla nar ko dimbali mu xool ne li ñu ko jëlee ak fu ñu ko yóbbu fu ñu ko yóbbu mooy yées ndax tuddatul yàlla te temps bépp mi ngi ko def ci ay football ak i seetaan ko ak xeet ak i débat ak ak ak dajaloo di xawaare xeet yu mel noonu ah mu daal di xalam nag daal ne waa man la ma jóge ak li ma nekk lan moo gën yàlla dimbali ko nag mooy in tattaqu llaaha yaj'al lakum furqaana su borom ne sànni ca xol ba nag ne ko ah, la nga jugoon kan moo gën li nga nekk mu daal di puccat ca caaxaan ya ca seetaan football ba ca werante ba ci weddi ga daal di daw dellu ca lam nekkoon daal di ci loolu kon la yàlla waxoon wa anibu ila rabbikum aslimu min qablu ay yaatu ah dee di dikkal kon moom daa def inaaba dawaat dellu kon loolu yàlla da ko dimbali subhaanahu wa taala léegi nag foofu liñ fi mën a jàngate mooy ah, mu tasawifuuna yi te mooy ñi nga xam ne ñoom dañuy jàngal nit defar ab xolam nan la gën a mën a jege yàlla subhaanahu wa taala képp ku jàngut seenu jàng wala fréquenté wu leen wala yàlla baaxewu la da nga neenal say waxtu te mbokk yi waxtu mooy temps lu cher la ci doomu aadama moo tax mutasawifu ni waxuma la temps bi sax waaye dañuy dem ba euh, dañ lay euh, maanaam xirtal ci nga nga say noy yi sa noy yi yi ngay noy yi dañ lay xamal bokk dañ lay xamal ne la waxuñu la temps wa waxtu wala seconde waaye noy yi gi ngay noy yi rek dèjà njariñ lu rëy ngi ci ngi ci loo xam ne mën nga cee jënd sa àdduna ak sa àllaaxira kon bàyyil bàyyil temps ndax nit ki buy dund ci temps lay dund nit ki bu noyyiwul mënut a dund léegi ñu lay wax ne waxatul ñooy waxtu wi de waaye noyyi gi ngay noyyi rek mën nga cee am njariñu àdduna ak àllaaxira boo xam ne ni nga exploité moo tax boo demee euh, ci Masaalikul Jinaan euh, téere boobu suñ tawa bind nga xam ne da ciy jàngale tasawuf di orienté nit ki naka lay mën a fexe ba sellal biiram ak bitam indi na ca buntu bu am solo fa muy wax ne wa kun uxayya daabita alxawaasi fi kulli waqtin xaafida al anfaasi foofu suñ tubaa dañuy jàngal nit ki waxuma la waxtu waxuma la seconde wala saa wala dañuy jàngal ne sa sa sa sa sa sa sa sa noyyi gi da ko war a da nga ko war a wut wut ngërëma yàlla subhaanahu wa taala léegi na ma commencé euh, di la di la di la di la wan ne la dafa am doomu dafa am yëg-yëg bu ci ne yëg-yëg bu ne mën na caa yàlla mën na ko caa mbugal yàlla mën na ko caa gërëm waaw yëg yéeg yooyu euh, bokk na ca nopp bokk na ci bët bokk na ca maanaam euh, li ñuy tuddee maanaam làmmiñ bokk na ca li ñu mën tuddee yaram bokk na ca yeneen ak yeneen nga xam ne xawaas yooyu ak xams nga xam ne nit ki da ci yëg te mën na caa yëg mën na caa loo lépp lu mu yëg mën na caa am mën na caa mën na caa mooy yàlla wala mu wala mu topp ci yàlla subhanahu wa taala suñ tubaab kon premièrement wax leen na kon sa xawaas yooyu yëg-yëg yooyu na nga fexe ba sàmm leen fi kulli waxti nag waxtu wu ne na nga fexe ba sàmm leen mooy bu ci def mukk lu neex yàlla subhanahu wa waaye nag lan la jeex mu ne xaafisa an faasi te nga eh, da nga sa sa sa noy yi maanaam noy yi ngay noy nokk yi nga garder leen waaw nga garder leen nokk yi nga naka nga leen di garder suñ tubaab di la xamal ne nokk yooyu dafa am njëriñ am solo su mat sëkk ndax mu ne li li anna kulla nafasin min rajulin jawharatu nafisatun lam tan ndax suñ tubaa neena bépp nokki bo xam nit ki nokki nako na xam ne wurus la bu sel wurusu sel da wurus ni ñu gën a sellante xam ne sax kenn tëggugu ko kenn sóobugu nga xam ne moom moo ko jël sóob ci lu ko neex defati ci lu ko neex te bu fekkee mën naa tëgg nag yaakaar naa bu ko exposé lu ko neex la koy jaay moo tax sëñ Tuubaa xamal na ko nokki bu nit nokki rek na xam ne ab jullit maanaam wurus la bu sell boo xam ne kenn soobugu ko mu ne lan la ci rek mu ne yumkinu an yastariyal kanza biha euh, mën na caa jënd trésor laa yatanaha xayruhu fanta biha trésor boo xam ne yiwu du jeex mukk kon yeewul yeewul nga xam ne sa nokki gi ngay nokk yow jullit bi waxuñu la temps ba waxuñu la waxtu waxuñu cas waaye nokki gi rek sëñ Tuubaa nee na maanaam wurus mbell la bu seer woo xam ne mën nga caa jënd trésor boo xam du jeex mukk loola kon ñoom waxatuñ la nag ngay bàyyi say say waxtu ngay bàyyi say temps di dem ci leneen leneen moo tax noonu ko leer ci kanam suñ tubaa ñëw leer daan ixlaau abdin nafsan min taa yujubu xasratan lahu fi saa suñ tubaa ne ndax xanaa xamoo ne ab jaam foofu jaam rek la wax moo xam julli moo xam du julli waaye suñ tubaa ne ixlaau abdin nafsan min taa jaam boo xam ne yàlla jaamu bi yàlla la maanaam fexe ba nokki nokkeem gi muy nokki mu fexe ba sànk ko ci neen neenal ko neenal ko nga xam ne da koo neenal rek ah, ci lu topp yàlla suma subhanahu wa nga xam ne mooyoo yàlla defoo dara waaye nokk gi no yaa ngi nooyi daal waaye sikkaroo ci euh, sarxewoo ci waxoo ci lu baax euh, defoo ci yooyu nga xam ne xeeti ibaadaat la Sëñ Tuubaa nee na loolu yujubu xasratan day waral rëccu ëllëg yomal xeam dégg nga de yaa ngi yaa ngi noyyu nii waaye sikkaroo ci wérduwoo ci defoo ci dara lu dul rek tëdd def lu la neex te te te sax loolu du mooy yàlla Sëñ Tuubaa nee loolu sax day waral perte ëllëg yomal xeam amma ida axlaytaha fi lmaasiya fa daak xusraan mubin fadriya nee na nag bu fekkee nokki gi ngay nokki nag léegi da nga ñëw eh, maanaam neenal ko ci mooy yàlla بمعنى واجي دران وير دران دف لب نيو جين كوتش لولي سكر يجيب موبايل لول لجي نك تا يم كون دف لجي دف ميجي دكو سر اي فوبالا كي نك كي لوهم نهور يالله سبحانه وتعالى تعالى نعم لولي بخ خيتي خيتي فير ابليس ده منك كي سنت بان نك لول موم فذاك خسران مبين فدريا لول مي بيرتنغا بغن ري الا كي يوم الخيام كون خمال لول لجي نك سنت بان كون ديلا واخ نان غا ورا دوندي في لا واعمل الاخوات بالنوافل baadal faraidi bi laa taxaafuli nee na kenn kon na fexe waxtu yi na koy dundal ci nawaafil yi gannaaw nag bi nga def farata yi kon loolu ma indi xadis qudsi bi yóbbu bi yontu salaas waxoon ne ab jaam yàlla ma ab sama jaam du ma du ma jege lu gën a neex ab sama jaam du ma jaamu lu gën a neex mu nekk ci la ma ko dig la ma ko digal mooy faraay faraa bi neg wamaa ba bara teg ne wamaa isal abdi yataqarrab ilayya bi lu dul man yàlla danaa ko bëgg boo ko bëggee danaa mujj nekk léppam lu ma ma mus mus du ko moo tax suñu jubaa ne kon wa bi nawafili baad al faraid bi laa taxafil mu ne nga dundal waxtu ci nawafil bi nga def farata yi bari na wa hakada bi sawmi wal awraadi wa dikri wal naka noonu ngay woor woor gàtt ngay boo ko mënee nga di ko def di awraat yi mooy mu awraat yi mooy wér di nga dog yi nga def awraat mooy wér mooy aw dog dog boo jël di ko def di ko jaamu yàlla ci zikkar ak ci xalaat yàlla subhanahu wa taala di xalaat yàlla xalaat yàlla suñu borom subhanahu wa loolu am solo toog di xalaat yàlla suñu borom subhanahu wa taala loolu tamit ci ci daraje ci ci day da maanaam ci ci ci ci maqaama yi gën a foor ci la bokk wala bokk ci tiyaaba yi gën a mag yoo yàlla subhanahu wa taala dana ko fay loolu ci la bokk nee na nga def ko nag ci bu ko bàyyi wa bi tasadduqin wa jadbin maali naka noonu mu lay wax yi nga xam ne mooy nawafil yi mooy ngay fexe ba di saraxe ak di wut alal di ko jox ñi nga xam ne dañoo nekk ci ay jafe-jafe wala dañoo euh, am ay bor wala yàlla subhanahu wa taala li kon xam naa waxtaan bi xaw naa gudd waaye mënu woon a ñàkk ndax xëy na euh, mënuñu ko dog-doge waaye euh, yaakaar naa mbir mi leer na mooy xëy sa boobu suñ bay waat du nett li ku nekkoon ci jaamu yàlla ñu fexe ba indi la sik sàkka dugal la ci nga neenal say waxtu waaye ba nga ko neenal la pare nga mujj di ko def ci mooy yàlla loolu mooy perte nga xusraan mu biin na yal na ci yàlla sàmbar musal moo tax mu tasawufuuna yi di moytandikuloo nit ñuy xeet mel noonu mooy di fexe ba nga gannaaw bi nga def farata yi pare ñu tënk la ci nawaafil ndax nawaafil moom du jeex léegi nag ñu yaafus te tayal wala iblis man leen ñooñu nag dañuy daal di ñëw daal lay dugal nag ci maanaam ne la kat euh, li ngay def bi daala wala sun borom subhanahu wa taala diglu ko def ci yow sikk sàkka ba nga xam ne lu baax la nga doon def lépp da ngay mujj daal koy teg suuf te loolu te loolu yàlla na ci yàlla bu yàlla na ci yàlla saabar musal ak perte nga bu rëy rëy rëy la te loolu tey ji bari na ñoo xam ne dugg nañ ca ba yàlla suma subhanahu wa man leen ca man koo xam ne astafurlah ba iblis ah, man leen ca man goo xam ne daanaka ah, fi ñuy teg seen tànk xamatuñ ko donc kon ah, fa ñu mujj rek bokk ca xaalax sa u xaalax sa u fiiha wala tukallimuni إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذوهم سخريا حتى أنصركم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتم اليوم بما صبر أنهم هم الفائزون لول يالك يالا صبر مسلم إلا نيو يوم الخيام صبر من لا دبل نغ فله دبل فله نغ تبول واخ مان دبل فله سي سوار تبول واخ مان لوتاخ صبر من انه كان فريق نخ امنا ab kureel ñu ibad samay jam yoo xamne ne daanam nekk di wax naan yalla yalla ngi may ak mucc yalla yalla ngi jéggal di dekat, yalla yalla ngi yërëm di def yooyu yépp yeen ngeen taxaw japp leen di leen mokke fa takhadumuhum dumuhum suxriyan leen di mokke ka retan ba loola fàttali lima ma di ma fàttali ko yalla subhanahu wa taala ngeen leen retan guddi ba ci te loolu mo am tay bari na ci ño xamne tay bo dem demee bi nga gis nga yoru kurus di wertu wala am lim booy def wala ngay wasif wala ngay def lenn ñu ne ma ngay def biddaa wala ma ngay njabar ma ngay def biddaa wala ma ngay njabar wal yaasu billahi taala suñu borom nag ne ah loolo kat ngeen di ko def di leen reetaan di leen mokke xata ansawkum dikri waaw lan la ci yàlla teg inni jasaytumul yawma bima sabaru danaa leen fayday ñoom lañ muñoon ca mokk yaag reetaan gaag weddi gaag tuumaal gaag yépp te muñ ko nekk ci lañ war a nekk rek ba tey man yàlla dinaa leen fay te ñoom kat na annahum humul faizuna ñoom ñooy ñi nga xam ne tey ñoo tax ñu mucc yàlla na yàlla sama borom boole ñoom ñooy la ñu ko mën a may nag mooy zikkar di tudd yàlla ndax alaa bi dikri mooy tatma'innul quluub wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala